Sall, honorables députés, c'est comme je le dis tous les jours, avec beaucoup de fierté, que je retrouve l'Assemblée nationale. Pour moi, l'Assemblée nationale et le siège de la construction de notre démocratie. Les indépendances à nos jours, c'est ici, dans cet hémicycle, que les plus grands débats dans la construction de notre démocratie ont été faits. à chaque fois que je même si, comme je vous Président, dans cette histoire démocratique, il y de hauts moments, il y a aussi des moments dits faibles. Et ce jour, 18 novembre, efface dans ma mémoire le jour du 12 septembre que j'ai vécu avec de l'autre côté, dans une ambiance correcte, dans une ambiance apaisée, nous avons su aujourd'hui montrer que le Sénégal est un pays de démocratie, que le Sénégal est un pays de grands hommes, où les gens peuvent avoir des positions divergentes, mais qu'ils peuvent se parler. Et de part et d'autre, Monsieur le Président, nous avons entendu des propositions constructives Nous avons entendu des suggestions, nous avons entendu des félicitations, nous avons aussi entendu des critiques. Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai encore une fois l'occasion de vous féliciter pour votre brillante élection. Parce que dans l'histoire, à mon avis, vous avez été le président de l'Assemblée nationale le mieux élu. Parce que, et moi-même, en tant que député occasionnel, j'ai participé à ce vote fait de courage et de détermination. C'est ça aussi un pays démocratique. Par moment, il se peut qu'il y ait des difficultés, mais ces difficultés sont réglées par les lois et règlements de ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais rendre grâce à Allah, je devrais commencer par là, mais aussi remercier le Président Macky Sall, qui, de par sa volonté aujourd'hui, je suis là en face de vous, et c'est pourquoi je continuerai à magnifier, à pour continuer à mériter de confiance parce que c'est lui et lui seul qui est la confiance populaire par un taux de 58% depuis les dernières élections. moo tax monsieur le président li ma fi dégg yépp ma kontaan ci loolu mais danaa ko diviser ci quatre parties première partie ay considération générale yeneen ñetti parti programme bu nekk bu nga xam ne mu ngi suñu ministère ma indi ci ay tontu danañ ma baal nag ku ci nekk bëggoon naa jaar sa tur ak sa sant fàttali sa question mais temps bi duma ko may moo tax ma bëgg tënk loolu li ñu def ci commission yi bind courrier danaa tontu ci question yëpp mais danaa ñëwaat après plénière parce que man liggéeyuma pour benn plénière man lu may ñaan yàlla. mooy 2023 ma ñëwaat fii ci confiance du président Macky Sall 2024 ma ñëwaat fii ci confiance président Macky Sall ci 2025 ma ñëwaat fii par la confiance du président Macky Sall moo tax lépp lu ma fi wax rek lépp lu ma fi wax rek dama ko bëgg dama lépp lu ma fi bëgg wax rek. moo tax xam nga ci réewum démocratie la ñu nekk réewum démocratie boobu moom ma am liberté d'expression bi ñuy wax lu bëri danaa tontu ci lépp ma bëgg a commencer nag ci considération générale yi honorable député gi Marius Sagna tontu naa la ci commission nga dëgër bopp ñëwaat fii waxaat ko maa ngi respecté sa position nee nga ma bu ma jël ne prend pas mal mais mais mais mais mes préoccupations yi ma lay dóor moi aussi honorable député dama bëgg nga jàpp rek nga bañ a jàpp itam en mal man li ma lay tontu tey parce que aussi mooy démocratie tontu du forox gii dama la ne honorable député je vous Mais il faut que vous nous respectiez. D'abord, un, honorable député, moi, je n'ai pas cumulé des mandats. Vous faites de la confusion entretenue dans ce pays. Je suis ministre de la République par la confiance du président Macky Sall. Personne n'y peut rien. Demain ou ce soir, il peut prendre un décret mettant fin à mes fonctions. je m'en remettrai à Allah les populations de Kaffrine les populations de Kaffrine ont souverainement décidé de me mettre d'abord conseiller municipal et maire de la ville de Kaffrine ça honorable Guy Marius Sagna si vous respectez les lois et règlements de ce pays donc vous devrez être les contrôleurs vous devez respecter cette volonté des Camerounois de me mettre à la tête de leur ville. Moi, je respecte, la volonté des Iguinchorois de vous conduire à l'Assemblée nationale, même si je ne l'avais pas voulu. Je voudrais que vous respectiez les Camerounois qui ont voté pour moi. Et je voudrais porter à votre attention, honorable Guy Marissagna. Je suis ministre de la République, je suis maire de Catherine. J'ai renoncé à tout salaire J'ai renoncé à aucun litre de carburant. Aucun de mes n'est payé par la mairie de Kaffrine. Le cabinet du maire de Kaffrine a zéro franc comme carburant. Je suis un modèle de sacrifice. Je ne suis pas quelqu'un qui a renoncé à ses salaires et qui paye des billets d'avion par la mairie de, de sa commune. Je vous le dis. Je veux qu'on soit clair. Je respecte votre position. Je veux qu'on respecte ma position. La troisième, Guy Marie Sagna. lorsque je termine, je termine mes activités, ou bien lorsque j'ai ma vie privée à organiser, je suis libre d'aimer le football. Comme vous, vous aimez votre frappe. Mais respectez votre frappe. Et laissez-moi avec ma fédération. Ce sont les clubs du Sénégal. C'est par la volonté des clubs du Sénégal, y compris le Casasport, le Santhiaba de Ziguinchor, l'Olympique de Ziguinchor, par la volonté de sous ce club que je suis là où je suis et là où je suis aussi à la fédération honorable Guy Marius Sagna honorable Guy Marius Sagna là où je suis à la fédération je ne reçois ni per ni indemnité ni quoi que ce soit je le fais parce que simplement j'aime ce pays j'aime ce pays et j'aime ma passion j'aurais été mal à l'aise honorable député si aujourd'hui par une de ces activités, de mes chantiers ne soit pas bien tenu. À la mairie de Kafrine, si vous avez l'occasion d'y aller, parce que vous avez quand même fréquenté Kungol, allez là-bas, vous verrez que je ne suis pas loin d'être l'un des meilleurs maires de ce pays. Ça vous pas moi, mais À la fédération de football, à la fédération de football, l'histoire à fait que je fais partie de ceux qui ont amené ici la Coupe d'Afrique et qui l'ont mis entre les mains du président de la République. Maintenant, Guy, dimbali ma nag caprinisation du ministère nag dama lay leeral parce que man je suis un administrateur civil mais un administrateur civil qui a été enseignant secrétaire d'administration xam nga ñu bëri par la volonté de Dieu pour arriver au sommet ñii dañu jël escalier loolu suma maam Abdoulaye moo ñu ko jàngal ñii dañuy escalier ñii dañoo jël ascenseur ci mbirum yàlla la man jëluma escalier jëluma ascenseur damaa bëriwu ba àgg fi ma àgg ma ànd ca gëm yàlla nag ministère bi ma jiite parce que boo waxee lii mu dem ci askan wi dana am lu mu nurool te ci réew la ñu nekk te dañu war a sàmm les équilibres de la république man Kaffrine laa juddoo et je suis fier d'être Kaffrinois Mais mon ministère, ici, les gens qui sont ici, mon secrétaire général est de Thiès, mon directeur de l'urbanisme et de, est de, est de Djurbel, l'administrateur du Fonds pour l'habitat social est de Gossas, le directeur du cadre de vie est de Tambacounda, la SNHLM est de Tambacounda, la SNHLM, la SNHLM est de Tiwawon. dans tout ce ministère dans tout ce ministère mon directeur de cabinet est de Kaffrine et on me dit que je kaffrinise et dans les réalisations c'est ça c'est dans l'institution mais dans les réalisations à Ziguinchor honorable député a parlé de la propreté à Ziguinchor honorable Guy Marius Sagna à Ziguinchor dans la propreté de Ziguinchor UCG a joué un rôle important. 94 fils de Ziguinchor sont recrutés par l'UCG dans Ziguinchor pour la propreté de Ziguinchor. gi man nangu naa nga critiquer ma mais waxal lu baax li may def boo ko waxee rek ñu mën a jubóo boo ko waxee ñu mën a jubóo moi j'ai pas de problème je suis un fils de la démocratie moi je ne suis pas un fils de riche je suis un fils d'un pépiniériste et d'un et d'une ménagère. né dans une case, qui a appris sous, avec la bougie ou la lampe à pétrole. C'est la République. C'est la République qui nous unit, qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, à l'Assemblée ou au gouvernement. Nous devons être fiers de garder ce terreau. Nous devons être fiers de garder, nous devons être de garder, encore fois, ce qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est la République. alors moo tax beneen bi assemblée nationale boo fi ñëwee dangay damay toujours saa yu ma ñëwee assemblée nationale damay ne à chaque fois su may ñëw assemblée nationale damay jàng lu bari parce que fii ñu fi daje d'horizons divers d'expériences diverses da nga fi gis ay anciens ministres d'État qui ont marqué l'histoire de ce pays d'anciens ministres qui ont marqué l'histoire de ce pays mais da nga trouver aussi le marchand le commerçant le paysan te gis na diplôme ça ne form ça ça formalise mais ça ne fait pas l'homme il y a beaucoup d'intelligence ici yu nga xam ne ku ci nekk ci ñun def ci war a jàng pour ëllëg moo tax à chaque fois su ma ñëwee assemblée damay teg déglu di taataan xel ak xam-xam fu mu jóge parce que ñi nekk opposition tey ñun ñi ñoo fa nekkoon te xam luy opposition te ñu bind suñu constitution que l'opposition est un rouage essentiel dans la construction de la démocratie donc ci pourquoi je respecte toutes les positions mais je veux aussi en contrepartie qu'on respecte nos positions alors si yenn question yu jëm ci cadre de vie cadre de vie maa ngi féliciter di remercier député yëpp ci liñ ci wax wax ko ci ñun wax ko ci UCG wax ko ci Promojet wax ko ci directeur général du cadre bi ma jàpp ni foofu itam bu lëkk lëkkee alom war na gërëm coy histoire propriété tamit xam nañu ko ba ci kadak ak yu fi jaar yëpp ci institution propriété président Macky Sall bu muy ñëw 2012 UCG Dakar la yemoon c'est ça aussi la vérité du 2012 sax UCG ci Dakar lay moom tey bu ñuy wax UCG Koupentoum Tambacounda Bandafassi partout sama waa ji Mass Thiam am na ci rôle bu mu joué bu important dans le management des hommes dans sa loyauté dans sa loyauté et son sens de responsabilité mais bu amutoon jumtukaay du ag fenn. c'est le président Macky Sall qui a recruté dix mille jeunes dix mille jeunes nekkoon nañ ko jox UCG pour que l'UCG soit partout c'est vrai dana am toujours ay jafe-jafe et je suis heureux aujourd'hui que c'est l'Assemblée nationale et c'est pourquoi ce pays on doit le garder en commun moi je suis fier aujourd'hui de voir des députés de l'opposition sur le haut de ce podium porter des casquettes de l'UCG ils ont porté les casquettes de l'UCG parce que l'UCG a prouvé le Promojet a prouvé, le cadre de vie a prouvé. Mais cela a été fait grâce à la volonté du président Macky Sall qui a voulu que l'UCG soit partout présent dans ce pays. 10 000 loans, mu yokk ko ba 12 000 mu defaat ko ba 13 000 c'est vrai il y a certains députés qui ont posé certains problèmes àggul seen dëkk danañ ci góorgóorlu ba mu àgg ci dëkk yooyu yëpp incha allah loolu la ñu président Macky Sall wax nañ ko def. te bu soobee yàlla danañ ko def ci renforcement des moyens yu wax dëgg neex yàlla UCG dafi fekk ay bor te état c'est une continuité continuité boobu dangay ngay hérité bor yooyu di continuer di xool ni nga koy fay moo tax ma remercier ministre de finance UCG bu toll ministère de finance ak veri volonté au président tëj na tëj na boutique parce que rien qu'à Dakar rek c'est 4000 ton mbalit ñu koy jël tous les jours nga xool ak li xew ci dëkk yëpp tey mbalit bi ñuy jël foofu yëpp ay concessionnaire la alal la alal jooju fan lañ koy jëlee ba tey nii ministère des finances mooy perfusé moo tax ci gis-gisu président mu ne il faut que ñu moderniser ñu dem ci beneen étape moo ñu créer SONAGED Sonaget dafay boole Promojet ak UCG def leen ci benn société société boobu dana mën a comme toute société nationale dana mën a lever des fonds mu amal ay koppar boppam mu mën a dox mbali bi mais aussi daf ñuy may occasion ñu uniformiser la gestion des ordures parce que mënuñu nekk 558 communes commune mu nekk am sa pexe am sa yoon bu ngay jaar te du am contrôle loolu la président wax ni. nañ ko saafara ñu harmoniser la politique de gestion des déchets mais ñu aussi ñu valoriser déchets ba nga xam ne déchet du nekk rek lu muy diis déchet mën na jur énergie mun na jur yeneen ak yeneen mu am une industrie autour de autour des déchets loolu tamit gis-gisu président la ñu ciy félicité wu maintenant mbir mi tamit ab yoon la bu ñu voté loi bi ba pare dafa am ay statut ay statut yooyu dafa am am ñu nga xam ne dañuy war a am seen avis yooyu yëpp procédure bu mais ci ay fan yu néew dañu installé conseil d' administration bi ñu mën a officiellement UC euh, Sonaged mën a commencé di liggéey ci réew mi yëpp mën a aussi utiliser ay jumtukaay yu nga xam ne war na ko mën a doxalee alors moo tax Promoged mu nekkoon projet bu baax xam nga euh, Promoged moom itam volonté wu président Macky Sall réponse structurelle à la question de la valorisation des déchets mais li ci am solo du commune Sénégal yëpp la jëloon c'est 138 communes 138 communes pour ñu tester ñu xool ko et ñu xool après comment l'élargir dans ce pays et dans cette su doon rek ministre mooy décider lu baax yëpp ma yóbbu ko Kaffrine Promojet day laal Kaffrine Promojet aujourd'hui c'est l'un des projets les plus porteurs dans la gestion des déchets qui est affecté à la SONAGED et toute la région de Kaffrine n'a pas une seule commune et là aussi c'est parce que va falloir y aller pas à pas des missions une des missions du Promojet bu ci gën a importance c'est la décharge de Mbëbës décharge de Mbëbës c'est la troisième décharge au monde tous les régimes romb nañu fi amul benn bu ko réglé et avec aujourd'hui le jet nous pensons que nous allons trouver une solution structurelle pour définitivement régler cette question d'abord en am na ñu wax fu ñu toll aussi nous sommes dans des procédures procédures aussi yéen ñuy wax transparence yéen ñu wax nañ doxal yoon moo tax appel d'offre fii ñu ko suivre appel d'offre gis nañ marché yëpp lancé nañ ko ci mbirum ba bés et bu ñu dépouillé bientôt bien bien entendu les premiers équipements verront le jour mais wax nañ aussi mbirum les récupérateurs contrairement à ce que un des députés a dit c'est pas simplement 500 le président de la République a donné l'instruction ku ñu nekk ci mbëbës yëpp di liggéey bu buñ ci bàyyi kenn mu perte liggéey soit ñii ñu dugg ci pro projet bi carrément ou ñu defal leen ay projet yu nga xam ne dañ koy utiliser seen jumtukaay kon foofu jàpp nañu les deux mille yi ñu identifié amul kenn ku ci nara a perdre liggéeyam alors le député là je vais être clair le député Abbas Fall mon cher ami Abbas Fall wax na li ma waxut tontu woon naa la ci commission bi nee la corniche bi amul luñ ci nëbb c'est un appel d'offres international restreint conformément au code de marchés bi ñu ko gañee xam nga nee nga service boobu da ngeen di gestu sa gestu des na service boobu bi gagné en toute légalité le marché def na la corniche de Côte d'Ivoire si vous allez à au aujourd'hui la corniche qui est là-bas c'est service boobu moo ko def allez au Maroc à Rabat vous verrez ce que cette en fait en termes d'aménagement et de paysage euh, euh, urbain. donc foofu sur cette question-là je peux avoir après vous donner tous les éléments mais li ma waxuma nañ xaar ba commission d'enquête ba rek ngeen xam chiffres yi dama ne la Abbas honorable Abbas boo bëggee c'est vrai dans la traduction et ça je, je dans la réponse dans le tableau on vous renvoie à la commission d'enquête que vous aviez dite mais en vérité si vous voulez Moi, je vous ai dit, honorable député, moi, je suis dans la transparence. Le président Macky nous a donné des instructions très claires sur la question de la transparence. Venez le lendemain à mon député, à mon, à mon poste, à, mon, bureau, je vous donnerai tous les éléments. Je vous donnerai tous les éléments. Il n'y a rien à cacher. Ce marché a été lancé avant que je n'arrive à, la tête de ce ministère. Et je ne suis qu'un exécutant. Et dans l'exécution, malheureusement, lii Abbas doo xam loolu te ma bëgg la koo xamal te bu la neexee avec la ville de Dakar on va aller faire visite vous pensez simplement que corniche bii ngay romb ay balançoire kese moo ca nekk alors que c'est c'est sur dix kilomètres presque et il y a des séquences formelles d'abord un l'avancée de la mer nee naa la man du ma comme Abdoulaye Diouf Sarr man du ma boy town man kamoon town la kamoon town la maa ngi fàttaliku école Isaac Foster fi mu nekkoon nekkatu fa su toon gis-gisu président Macky Sall fii ak ay at prison Rebeuss bi sax ndox mi dana ko jël mais loolu ñuy wax ay 18 milliards boo demee ci yoon ci ñeenti séquences yi ba ci marché de poisson nga gis désordre bu fa nekk ñu war ko moderniser wane une autre image ba ca université on crée un agora bu nga xam ne on aura une bibliothèque artificielle nga xam ne ah, da ngay ñëw fii nga toog. nga mën a connecté wu avec la bibliothèque universitaire de Dakar qu'est-ce qui est plus moderne que ça et je peux vous donner tous les éléments concernant les quatre séquences qui concernent ce projet je peux vous donner tous les éléments honorable député nous sommes ouverts à tout député à tout député qui veut savoir nos bureaux sont ouverts sur la question de la corniche vous n'aurez pas vous n'aurez pas le marché que vous souhaitez taper sur nous pour 18 milliards, dire des choses pour vendre des illusions, ça ne se passera pas. Honorable Abbas Fall, dès demain, je peux vous donner toute la documentation nécessaire sur cette question et mener toutes les enquêtes. Et vous avez tantôt mené toutes les enquêtes, je vous donnerai tous les éléments, il n'y a rien à cacher. Eh bien, c'est vrai, j'irai à Qatar, c'est vrai, euh, pour, au de mes responsabilités, mais honorable Bimaïr Sagnan, avec président, lorsque vous aurez besoin de moi à tout moment, je répondrai à toutes les sollicitations de l'Assemblée nationale, parce que moi je sais et je connais ce que l'Assemblée nationale représente dans une république. Donc là, ne, ne pensez pas un seul instant qu'il y aura faille dans ce... Et après, je pourrai vous remettre qui la synthèse de tout ce qui est attendu de ce projet sur la corniche, qui fait la fierté du Sénégal, la fierté de l'Afrique, et qui, aujourd'hui, partout dans le monde, partout dans le monde, est cité un exemple. C'est seulement c'est seulement à Dakar, à Dakar, avec vous, monsieur le maire, qu'on ce problème de la corniche. Or, ce projet, nous devons le partager. Et à toutes les réunions, monsieur le maire, toutes les réunions, nous avons convoqué régulièrement la mairie de Dakar. Nous avons convoqué dans les réunions, en amont comme en aval, la mairie de Dakar. La mairie de Dakar n'a jamais voulu répondre à nos convocations, à notre invitation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous sommes dans une décentralisation, mais l'État reste, l'État reste le socle de la République. Nous ne pouvons pas être retardés dans, sur des questions essentielles qui appellent, nous, sommes encore, monsieur le maire, nous sommes encore ouverts à un dialogue et le président nous a l'instruction de voir sur l'exploitation de la corniche, de travailler avec la ville de Dakar et à la mairie de Dakar pour voir ensemble comment nous pourrons co cette question. Nous sommes ouverts à toutes les propositions, nous sommes ouverts à toutes les solutions. Et sur cette question-là encore, nous pourrons avancer ensemble. En définitive, Mesdames, Messieurs, honorables députés, je voudrais me féliciter de tout ce qui a été dit sur l'UCG, sur le cadre de vie de manière générale, et qui nous exhorte à faire mieux et plus. C'est vrai, on a posé le problème du matériel, des équipements. Cela aussi, il y a un budget qui a été prévu qui mérite simplement d'être renforcé parce que c'est quand même à 13 000 agents qu'il faut prendre en charge régulièrement. Le chef de l'État a donné des instructions pour que le budget soit renforcé et que l'appui nécessaire soit apporté à l'UCG et à la direction du cadre de vie. C'est vrai, honorable du, euh, président Dubrifal est revenu particulièrement sur cette question, dañuy aménager lu bari mais après mu am problème de suivi et c'est pourquoi d'ailleurs ñu wax ak la direction du cadre de vie de veiller avec les écovigiles fépp fu ñu aménager ñu def fa dara parce que bu ñu fa defee dara day tax ëllëg kenn du mën a mais affaire bi tamit dafa laaj ñu lënkaloo ak mairie yi ñu lëkkaloo ak population yi am na ay quartiers comme Ouest def nañ fa lu nga xam ni population yi ñoom seen bopp. ñoo jël di surveiller mbir mi donc foofu itam maa ngi rafetlu position député yi député yu bëri ñu ñu ngi ci jàppale dans leur ville dans leur quartier pour que les aménagements qui sont faits soient préservés maa ngi leen ci sant bu baax a baax leen ci gërëm bu baax a baax bu ñëwee itam ci urbanisme de manière générale foofu itam lu bëri wax nañ ko ci mais nañ jàpp président Macky bu mu ñëwee ci 558 communes yu Sénégal yi fi nekk 13 pour cent ñoo si am outil de planification président mu nañ dem fii ak 2030 nañ mën a def 100 pour cent mais bu ñu waxante dëgg initiative de d' de planification yi maire yi ñoo ko waroon jiite ñoo ci waroon jiitu ñoo ko waroon jël en charge c' parce que foofu itam am na ay carence carence yooyu le gouvernement bi bëgg parce que en vérité même si on peut s'adosser sur le principe de la libre administration des collectivités locales, mais on continue à avoir aussi que la collectivité locale est un démembrement de l'État. Motard, le président a donné l'instruction et nous avons élaboré un programme national de planification urbaine qui nous mènera d'ici 2030 à avoir dans toutes les communes du Sénégal des instruments de planification urbaine. L'OITM, c'est pourquoi le député Tcherno Altansal, d'accord, je lui ai dit en commission le constat sur le constat, sur ce qui s'est passé après les indépendances, on peut partager, on peut partager différemment. Mais au moins, honorable, c'est dans la vision aujourd'hui exprimée par, la, par, le président Macky Sall qu'on trouve les solutions définitives à cette question. Parce que les paradigmes sont en train de changer. Wakngoko, Dakar, les grandes villes, Saint-Louis, Thiès, l'Infidon Gis, tu vois, il y a eu Am lu ci bari lu ci yaq deug la mais li ci am solo mooy loolu itam li ko manqué woon mooy les instruments de planification ces instruments de planification là si nous les mettons ensemble en œuvre nous pourrons prendre en charge la question de la prospective et de l'anticipation sur beaucoup de questions ça je suis parfaitement d'accord et encore que nous voyons en termes d'investissement que les choses ont fondamentalement bougé mais enfin chacun dans ses responsabilités et ses missions devrait pouvoir y apporter du sien wax nañu PDU Touba yooyu yëpp ñu ngi ca c'est vrai am na aussi ay régions yoo xam ne daanaka pare na euh, le député certains députés l'ont posé dans certaines régions on a déjà terminé mais il reste tellement à le terminer par un forum bi bu ñu defee instrument yi euh, techniciens yi dem fa dafay laaj liggéey bu nga xam ne dañu koy dajalaat ñëpp daje partenaires yu ci acteurs yëpp bokk ci et ensuite ñu terminer ko par un forum ce forum la dans, dans, dans, la région de Kaolak, Patik et Kafrine, par exemple, nous avons presque terminé les travaux préparatoires. Il nous reste maintenant à aller plus loin. Et ça aussi, le chef de l'État nous a instruit de, mettre, de faire dans toutes les régions du Sénégal des forums territoriaux. Ces forums territoriaux, devenus d'ailleurs tous les élus, de tous bords, d'ailleurs les, les maires, les présidents de conseil, mais aussi les autres acteurs de développement, et qu'on voit ensemble les investissements qui sont faits dans chaque département, voire dans chaque commune, voir ce qui reste à ensemble et d'élaborer un programme de un programme de travail moo tax ñenn ñi ñu bëri député wax nañ ma ñii mosquée yi fii ñii yoon yi ñii ay espace vert ñii ay espace public su ma taxawoon léegi léegi ne leen ku nekk dina tontu ne la lii dinañ ko fa def même su ngeen ma wóoloo lu bëri lu ci nekk dëgg moo tax li ma gëm mooy liñ ma fi wax yépp parce que nag liñ ma fi wax yépp ñaan ma ko koppar bi antuwu ko moo tax loolu yépp dama koy taataan téye ko xool ak li ñu mën delluwaat ci yéen ne leen ci li ngeen ñaan fii ci assemblée nationale ci atu 2023 bi lii lañ ci mën a def parce que bëgguma di kenn lu nga xam ne ëllëg duñ ko mën a def moo tax loolu itam ma ñaan leen ko ñu wax fi yépp te wax seen dëkk wax li fa manqué xool liñ fa war a mën a def danañ ko xool bu sob yàlla ba ñu mën cee am dara xam nga wax nañ ci band filao bande filao député yu bëri wax nañ ko majorité comme opposition mais li ci am solo mooy y avait que deux alternatives continuer à observer xool li bande bi di am nga continuer di ko observer croiser les bras te doo xam fu mu jëm ou bien nga uti solution c'est vrai dans tout ce que nous faisons je continue de que la collectivité territoriale est un démembrement de l'État. Il ne faut pas que les gens se trompent. La collectivité locale est un démembrement de l'État. Mais aussi, honorable de, euh, maire de Guédiawaye, l'administration est une continuité. Le 4 juin 2020 ou bien 2021, vous n'étiez pas maire de Guédiawaye. Et nous avons aussi travaillé avec la mairie de Guédiawaye et les populations de Guédiawaye. Et à partir de là, est-ce qu'il fallait laisser le désordre perpétuer ou bien il fallait nous avons choisi la voie de la responsabilité. Organiser cela. Il y a un espace pour les équipements, il y a un espace pour l'habitat, mais aussi en même temps un espace aussi où le reboisement sera prospère. Et là, c'est très, très, clair. Ce qui est des de gis nga code de la route moo gën a baax ci code yi mais vous verrez toujours des chauffeurs délinquants pour violer ce code texte yi ñuy def tamit dana am toujours ñu ut pexe pour li lijjanti ko te li may ñaan mooy ñu boole suñu doole fépp fu am trafiquant fépp ku bëgg utiliser askan wi pour def leneen ñu xeexandoo ko ensemble débusqué leen sanctionné leen loolu la loolu lañ mën a garantir mais mënuñ ñëw seetaan désordre bi ku ci nekk du ci am am am loo ci dugal ëllëg lu ci am ci responsabilité ci ñun lay wàcc moo tax décret boobu dañ koo def en toute transparence toutes les procédures de consultation ñu am def ko ba arriver à la signature du président de la république et loolu foofu man maa ko jiite sama bopp lii jëm ba ci décret bi man maa ko jiite sama bopp réunion yi maa ko jiite am na yenn yu def am na réunion yi nga xam ni damay wax sous le contrôle de la présidente Aïda Sow Diawara boobu moo nekkoon maire Golf elle a participé à ces réunions là tous les maires de la de, de, de, qui sont dans département de Guédiawaye ont été associés à toutes les réflexions donc si vous avez des avis, nous sommes aussi ouverts dans la mise en œuvre, non pas sur, sur le décret. Parce que le décret, quand même, aujourd'hui, euh, euh ce qu'on appelle la force de la chose jugée. dagga xool pa dagga xool pa euh, maa ngi félicité nag député Niang euh, pour pour pour votre participation et votre implication personnelle et surtout pour les idées yi nga xam ne jox nga ma ko en dehors même de l'assemblée jox ma ko wax ma nañ doxalee nii pour jàmm am fa an la ci félicité bu baax a baax te li nga ma wax ne man man sama bopp naa ci impliqué wu àggali naa ko sama ministère bi yëpp ne leen kii li ma wax mun naa koo dégg mun naa ko gëm mais comme que nag dafa am ay procédure préfet ba nekk nekk yore commission ba ñun ñëpp ñu d'accord ni ah nañ bàyyi commission bi mu doxal bu commission bi doxalee du tee képp ku fa nekk am xalaat li mu wax nañ ko déglu ma rassuré la ni man mi sama bopp danaa ci impliqué parce que en définitive s'il y a un responsable bu demee dem bu amee jafe-jafe président la république du au SAFRU du au DGUA ci man lay dóor comme que nag ci man lay dóor lépp lu nga xam ne intérêt askan wi danaa ko sam lépp lu nga xam ne transparence dañ ko def mais du tee nag xam ngeen ni mbir mi fu ñu laal bëgg a liggéey dana am ay de d'illusion yu fay jiitu ne la suma suufu maam la woon suma lii tamit ku ci nekk dugal ci leneen lu nga xam ne bokku ci mais comme ni nga ko defee wane un sens élevé de la république ñun ñëpp mun nañ lëkkaloo loolu ba jàmm am dagga xol ba projet bi nga xam ne président la république moom la yéene dagga xol ñu mën ko mettre dans les meilleures conditions possibles maa ci gërëm di la sant bu baax a baax ci mbirum équipement yi itam euh, kii wax na cité APIX loolu li ma ci li ma ci mën a wax Aïcha Touré moo ko li ma ci mën a wax mooy dinañ waxtaan parce que loolu tamit dépendre ci man exclusivement dafa dépendre aussi ci ay yeneen secteurs yeneen ministère danaa ci wax ak ñoom ñu xool lim ñu wax ci mbirum cité APIX ñu gën ko approfondir ba mën ci am ay solution bon le, le député Abdoulaye Diouf Sarr que je salue au passage a reposé le problème des extensions de euh, Ouakam Yoff 2 et cetera loolu itam maa ngi la ci félicité bu baax parce que li nga ma wax dégg naa ko euh, junj doy na ci borom xel dégg naa ko bu baax te loolu itam dama président sant président moo doxal loolu waxtaan ak ñi nga xam ni ñu ngi ci zone yooyu jàpp ni am na lu bëri lu ñu ci def lu nga xam ne war nañ koo mën a mais lépp lu ñu ci def daal dañ koy diisoo ak ñi nga xam ne ñoo ko jurandoo woon mbir mi politique du ci lalu par par du ci lalu liñ ci séntu woon ba collectivité lébu yooyu mën a gis seen bopp parce que képp ku fi ñëw ci Ndakaaru ñoom ñoo la xajal ñoom ñoo la xejal ba léegi ñoom amatuñ place loolu tamit maa ngi lu tamit sa implication personnelle ci loolu l'histoire nag ak lu xew-xew ci àddina kenn mënul effacer histoire te cette histoire bu fait partie de ceux qui l'ont créée dégg naa li nga wax ci lu bëri bari bëri ah monsieur le président on demande de conclure mais Après, je ne veux pas dire que les députés disent que j'ai fui. Je n'ai pas fui. Monsieur le Président. Hein euh, pour les questions techniques, vous pouvez répondre par... Euh, Alors, sur Ouest euh, les études de faisabilité ont été faites. Nous allons suivre ensemble, sur l'élargissement des voies. Je transmettrai au ministre du Développement communautaire à travers Promobile votre vieux Monsieur le ministre, Ce jour-là, je vous ai accompagné pour le lancement de cette voirie à côté de la Fédération sénégalaise du football. C'est une voie que j'ai portée avec beaucoup de bonheur. La restructuration de Tiaroy-sur-Mer aussi, Monsieur le Président, les études techniques sont en cours et nous, aurons le, un financement de l'Union européenne et, et, toutes les études préalables ont, ont déjà démarré et nous pensons que nous pourrons nous pourrons continuer. Ndagana l'a posé, mais aussi le maire Babacar, Babacar, Babacar l'a posé. Et je voudrais les féliciter, les remercier, surtout l'implication du maire de, de Charoy sur cette question. yeneen yi ñu wax yëpp mooy ay penc yi mooy jumaa yi wax naa ko loolu itam danañ xool xayma liñ ci mën a def ci 2023 naa leen ko signaler mais jàpp naa ne député yi jàppale nañ ma ci lu bari ci biir religieuse biir religieuse ministre des finances mu ngi may dégg liñ liñ ma jox ci koppar mënu ma àggali Sénégal gi yëpp mais danañ jëm comme ni ko président bëggee mu àgg fépp xam nga nag loolu laay wax tous les jours cest di que tey bu ñuy wax rek defaraat ay juma defaraat ay église ci réew mi defaraat yu bëri yu jëm ci culte président Macky Sall moo ci dugal loxo parce que nag la vocation de État bu fekkee on regarde les vocations régaliennes c'est pas de faire des mosquées et des, et des églises. Mais ça, c'est un sentiment de proximité et de partage avec les populations, de solidarité avec les populations, qui ont fait que ñu àgg ci ñu àgg ci loolu. le reste maintenant gis nga la président de la République moo njëkk a wax ci Sénégal fii que l'une des plus graves menaces à notre équilibre ce n'est pas l'opposition ou quoi que ce soit dans ce pays c'est le foncier. le foncier là, c'est nous tous qui devrons être vigilants. Parce qu'un pays, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Un pays, c'est aussi demain. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous ne serons pas là. Et ces actes de prévision, nous devons les gérer aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a la responsabilité des maires, il y a quelque part la responsabilité de l'État, mais aussi la responsabilité des populations. Nous, tous ces trois entités, ñoo war a lënkaloo pour surveiller ensemble cette question cette question mérite un consensus national cette question mérite que tous les avis soient pris en compte mais bu ñu jàppee ni rek fii xam nañ lu ci bëri lu ci lu ci jëm mais itam war nañu mën a gëm ni am na lu bëri lu ci faju moo tax ma mën a def transition tuuti ma dinaa résumer sur les logements ñu bëri wax nañu SNHLM SICAP SNHLM SICAP ce sont nos promoteurs publics. Comme certains le disent, ce sont nos beaux bijoux. mais dëgg waxtaan ca wax waxtaan wax dëgg ca la président Macky Sall ba 2012 li mu fekk ci Sénégal mooy at wu nekk cinq 5000 unités d'habitation terrain ak logement moom mu bëgg ci benn at nañ def 20 000 logements. am nañu yàkkamte léegi dama ne waa fuñ ci toll lii lañ commencé mais état dafa am yoon mbir mi il faut d'abord créer l'écosystème il faut bu ñuy dem ci dara am na lu ñu ci rek gis naa ni sax am na yu bëri député yu bëri comprendre ñu luy fonds pour l'habitat social parce que ñu ngi may wax ni 20 pour cent pour la diaspora fonds pour l'habitat social non non non loolu du fonds pour l'habitat social du fonds bu ñuy pàccoo du fonds bu ñuy pàccoo fonds bi dafay faj problème bi fi président ñu bëri. am na ñu bëri ñu wax commerçant yi marchand yi mécanicien yi ci la ñu bokk parce que président dafa ne képp ku amul revenu bu ëpp quatre cent cinquante mille ci nga bokk mais bu ñu bàyyi woon sénégalais yi rek ci banque yi taux bi xaw a élevé am difficulté ci loolu moo tax président créé fonds pour l'habitat social fonds pour l'habitat social c'est surtout pour la gestion de la garantie mais bu ñu paree nag cent mille logements yi mu jox ay quotas ay quotas nag dafa ne minimum diaspora minimum mu ne vingt pour cent wax dëgg yàlla mais mën na am lu ko raw mais dafa président dafa ne bu mu yées vingt pour cent loolu nag amul benn politique ak parparloo bu ci nekk mbir mi da ngay bindu dafa am plateforme bu ñu ubbi plateforme bi tey enregistré na plus de deux cent soixante onze mille inscrits logement itam du dëkk bi laaj na rek ñu war fa dem président nee nañu ooy équité territoriale nañu def au moins cent logements au minimum dans chaque département du Sénégal mais loolu aussi ça dépendra de la demande doo dem commune bu nga xam ne ci plateforme bi kenn laaju fa nga tabax fa boo tabaxee kan ma koy jën kon foofu jafe-jafe foofu la nekk nit ñi il faut ñu inscrire ñu mën a évaluer les besoins mais au minimum dàpp jàpp nañ ni chaque département du Sénégal au moins dana am cent logements may fàttali ni Diourbel Diourbel jàngee naa fa je parle sous le contrôle de du maire Malick Fall jàngee naa fa de 1960 à 2012 à 2022 on n'a pas 200 HLM 200 maisons HLM en termes de construction Barke Demba Ndiaye ñu ngi fa lancer un programme qui va créer 1067 logements en une année quand même loolu c'est un paradigme ñuy wax ni waa d'accord. ñu am na ñoo xam ne toujours ils sont toujours dans le passé HLM SICAP c'est bien HLM ak SICAP ñu ngi ci biir 100000 logements président dafa ne lépp lu ñuy joxe 100000 logements na HLM ci bénéficier na SICAP na ci bénéficier mais bu ñu calculer par rapport à l'ambition HLM boo xoolee 1960 bu ñu ko créé ba tey nii dépassé wu 15000 logements li mu créé plus de 40 ans plus de 50 ans dépassé wu 13000 président bëgg ci benn année nañ def 20000. boobu danañ ko yemale ci HLM mënul ko mënut a nekk dañuy ñomal HLM defar HLM dimbali ko mu gën a am foncier dimbali ko mu mën a am ressource ci fonds pour l'habitat social mais en même temps ñu encourager le secteur privé national ça c'est partout c'est une question de mondialisation secteur privé national bi tamit honorable député président du ne priorité na ngeen accorder priorité au secteur privé national ñu encadrer leen mbir mi am na ñu ko wax itam waruñ profité ci cent mille logements yi Pape Djibril Fall moo ko waxee na pour ay ñi nga xam ne dañu wuruj ak lépp leneen def ci leneen ci exonération moo tax foofu dañ ko encadré bu baax a baax dafa am guichet unique ñu def ko mais aussi dafa am commission bu nga xam ne étudier toutes les demandes d' ba tey nii ba tey nii ba tey fi ma nekk nii benn rek benn promoteur moo ci bénéficier parce que mesures yi dañuy bañ ñu def détournement des objectifs askan askan bi mooy perte ay ay ay recette mooy perte ay revenu te loolu ñun ñëpp ñoo ko war a sàmmandoo mais nag gaañ bëgg nañ secteur privé bi yëpp mu national mu dox kenn gënu ñoo nekk nationaliste kenn gënu ñoo nekk nationaliste kenn gënul nekk par Macky Sall nationaliste mais dañoo am ay objectifs te àdduna bi léegi booy dafa yenn appel d'offre yi te ñun ñoo ñëw def code des marchés fii lañ voté la loi sur le partenariat public privé mu am ay règles boo defee yenn appel d'offre dañ leen ak bii dafa war a nekk national bii obligatoirement dafa war a nekk international bu nekkee international looy def mais ay sénégalais ñu ngi gagné marché gën a gën a équatorial ay sénégalais ñu ngi gagné marché ay Maroc ñu ne d'autres africains duñu gagné marché au Sénégal où est le panafricanisme dans il faut aussi que loolu ñu xam ni mais l'essentiel c'est que les intérêts des sénégalais kenn du ci marché et sur le projet aussi nous préserverons les intérêts du secteur privé nationale. coopérative des Sénégalais de la diaspora coopérative itam président jox na ñu ndigal ñu responsabiliser leen ñu impliquer leen ci mbir mi danañ def li ci war danañ def li ci war ba associer toutes les coopératives et jàppale aussi la diaspora sur cette question li des man ñu ngi may def pression de de toute part pour que ma résumer alors que dama bëggoon tontu ku nekk parce que man je suis un enfant de la démocratie alors moo tax moo tax may conclure di gërëm ñi ci des ku ci nekk ñu ñëw tey ou beneen dinañ ko jox réponse jox ko ko de manière écrite suivre ko ak yéen parce que bëgg naa l'année prochaine su ma fi ñëwaatee kenn du ma dut baaram maa ngi maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu nag bu baax a baax dama rafetlu tey li ma gis ci salle bi mu neex ma maa ngi jégalu bu baax a baax ci xëy na tontu wi dina xaw a ñagas parfois mais loolu itam mooy démocratie loolu tamit mooy république lu ci nekk critique yu ñu yu ñu wax fii bu ci nekk danañ ko njëriñoo doxal ko xool nuñ ko defee dans le sens de l'intérêt du pays ah maa ngi leen di gërëm leen sant wa salaam merci eh. je vous remercie monsieur le ministre monsieur le